jërë ngeen jëf tàng jër dana ko def tey ca yàkkoro soleil national moo ko bind ci xëtamu njëkk max bi war a dox diggante Sénégal ak Guinée moom la xëy di waxtaane ba duñu wax ne lion de la Teranga ak sili national danañu laale tey ji ci ngoon bu sënkër jote mu di ab max bopp soleil national gis na ne la ci laxasu bari na benn mooy gañe match bi dina tax Aliou ak i goneem duñu roñu di fabu di jóge ca Yamoussoukro ndax bu ñu gañee ñu jiitu ci bu boobaa dañuy des ca Yamoussoukro bi ci journal bi gis mooy gañe Guinée mel ne Nigéria ci huitième yéenekaay nañu li gaynde Sénégal yi bëgg mooy jël pépp jël péfét ñetti max ñetti victoire neuf points sur neuf moom la Lions yi divisé moo jëlagoom pied ci poulam ko moo tax tey ji in fokk dañuy dóor Guinée ngir assurer première place bi stade yéenekaay ne ko objectif bi ndam rek gagné Guinée ngir bañ a jugee ca Yamoussoukro gagné Guinée ngir def ñetti max ñetti victoire di lool su amee ci histoire footballu Sénégal ndamal Sénégal ci kaw Guinée Conakry stade ne ko ci am yaakaar ndax mi ngi ñuy xamal ci xëtamu njëkk ne Sénégal mës a ñàkk max diggëm a match Sénégal ak Guinée tey bi ni ko journal lise ko gisee mooy ñaari wujj yu koy ñàkkante ci dér bi ngir akimu première place bi journal bi teg ci dañuy yeggee kàdduy Kaba Diawara entraîneur bu Guinée Kaba nee na dafa yàkkamti match bi Aliou Cissé di ko tontu ne xam naa Kaba Diawara bu baax xam naa ne dóor Sénégal rek la bëgg waaye man sama yéene mooy fexe ba loolee mu bëgg du ko am li nar am tey ci ngoon mu di les lions de la Teranga contre Syli national soursoi mi nga ñuy wax ne ab derby sous tension la mi quotidien ne ko mën a la déet ndax journal yi si ñaari réew yi mu di Sénégal yu Guinée tàmbale nañu ko may xatta dara xewagul démb ci conférence de presse bu entraîneur Guinée bi Kaba doon def tuuti konoon journaliste yu Sénégal yu Guinée kurpañante fa l'observateur mi xëy sol dàllam dem Conakry ngir wax ñu ne ñu gisee match bi mi ngi ñuy wax it li laxasu ci match bi ak li tax ba ñaari équipe yi kenn ci ñoom bëgg koo ñàkk Karim Wade mi ñàkk nationalité français mi ngi nii jonkan ci xët mu njëkk Walf Quotidien li mu fas yéene mu di dem ci cour de justice bu CEDEAO kalaame moo waral journal enquête gis ne ñàkk bokk Karim Wade yi sens la nar doon ci Idrissa Seck ndax ci candidat yi ñu retenir mennam Idrissa Seck rek moo ciy dox doxinu libéral ba tax mënees naa njoxtu ne bu Karim Wade bokkul ñi ko waroon a jàppale mën nañoo dem jàppale ji njiital parti réew mi l'observateur xëy ab taxaw seetlu ci mbiri Karim Wade mi ngi ñuy wax ne moom Karim Wade su bokkul ci wote présidentielle yi moo nar a doon ñaari élection présidentielle yu am ci réew mi mu koy waat moom doomi Cheikh Bara Dolly Mbacké yamu ca wax na a régler a waaye nee la ko ca Karim Wade tegal mooy dangaa raciste ci Les Échos fa am na benn bés ma ne Karim Wade dangay jàng wax wolof nee keroog Karim dafa mer ba tuutee des mu xar suuf si dugg ci Cheikh Mbacké Bara Dolly nañu ci yéenekaay bi neewoon naa ko na takk jabari Sénégal ba xelaloon ko sax mu dem Tiwaawoon jël soxna ci famille ga fa nekk waaye defu ko ba muy takk jabar da ko nëbb ci nëbbatuwul ci li mu nekk direct news nee nañu mooy Mame Mbaye Niang ñàkk xajoo gi mu ñàkk xajoo Amadou Boy du jug ci di ko fësal tax journal bi di laaj ci moom ministre tourisme gi di Mame Mbaye Niang ndax dafa am lu rëy lu ko jotale ak Amadou Ba am ndax dafa àndul ci tànn gi mantoora Macky Sall tànn Amadou Ba jiital ko ŋàññeeg diingat yi Mame Mbaye Niang ak Amadou Ba public yéene mi ngi ñuy wax ne Mahammed Boun Abdallah Dionne bokk na ci ñi mu a defar seen affaire affaire Prodac bi bi wax it ne am na ñu wax ne Mahammed Boun Abdallah Dionne bokk na ci ñi BIPSI kan ci ñetti candidat yi la Ousmane Sonko di jàppale ci présidentielle 2024 yi Le Quotidien lu jara lijjanti la ndax parti Pastef gawoon ñoom ci jomaay ca la jafandu ñaari candidat yi jedes di Habib Sy ak Cheikh Tidiane Dièye li naat Le Quotidien nañu mooy xool ba gis kan moo gën a jekku ci yëf yu ñu topp ci ginnaawam mbooleem candidat yi samp seenum dënd ci présidentielle 2024 yi journal Tribune nee nañu nappkat ci réew mi ñoo ngi leen di xaar yéenekaay bi nee nañu móol nañu ab sart boo xam ne fukki engagement ak ñett ñoo ca nekk nee nañu candidat bu ci nangoo engagé wu signé sart ba ñu ànd ak yow li ñu dëxëñ ca sart ba turbine mi ngi ñuy wax ne mooy yoon yi ñu war a jaar ngir suqali napp gi jàppale nappkat yi ndax gis nañu ne ab secteur la bu ñu ginnaawal ginnaaw loolu nañu daje ci xët mu njëkku libération lu ñaaw te yéeme doy warte miti moo xew ca Sogas fajar cu yéenekaay bi nee nañu ci la benn waay bu ñu naan Abdou Mbaye bett ab xaritam bu tudd Abdou Diaw daaneel ko ci suuf tër ko ne ko deqet rendi te kat Abdou Mbaye yéenekaay bi nee nañu tuddee na doom